ñëw pour dalal madame le maire Ndeye Mbacke bi nga xam ne nii dafa jóge ci mouvement présidentiel bi ñëw grand parti ba pare inauguré permanence grand parti Thiès ba pare ñëw fii dalal eh, suñu militants yi nga xam ne ak militants yi nekk département de Thiès sama xol sedd na parce que du ñëwee Thiès ñu accueillir ma ci accueil bi mel nii dama waxoon ne sax du ma fii ndaxte dama ne woon bu huit heures jotee match équipe nationale commencé dama war a arrêté lépp lu may def parce que ñun ba équipe nationale de football ñu war a dem taxaw jàppale ko ñaanal leen ba yàlla may leen dem waaye nag xam nga temps politique moom mënuñu ko maîtriser waaye nag li nekk suñu xol yàlla ko yàlla mottali li ci des nag mooy Thiès dëkku politique la ñëw naa fi gërëm naa responsable ma àndal yëpp sama xol sedd na si ñoom te gëm naa ne bu neexee yàlla tournée bi ñuy waaj def ko ci fii ci département de Thiès fii ci ville Thiès ak ci région bi na nekk tournée bu mag a mag ndaxte xam naa ne grand parti yéen ngi liggéey liggéey bu am solo. loolu moo tax sama xol sedd na ci yéen sama xol sedd na ci jigéen ñi sama xol sedd na ci xale yi sama xol sedd na ci mag ñi maa ngi leen di jox rendez-vous assez prochainement pour ñëw fii ñu ànd liggéey pour Sénégal li ci des nag xam ngeen ne le 14 dañoo décider marche marche boobu ñuy def nag ñaanuñu kenn nga may ñu ñu marche parce que constitution Sénégal daf ñu jox droit ñu marche te bu neexee yàlla le daa ñu marche marche bu rëy. marche bu am solo pour défendre démocratie Sénégal pour aar liberté yi mais également aar li nga xam ne nii mooy alalu réew mi ci fànn bu mu mën di nekk loolu nag moo tax euh, maa ngi ko wattu Sénégal di dox te bu neexee dina neex dox boo xam ne nii daañu ko fàttali ci dox yi gën a rëy ci histoire politique gu Sénégal kon nag maa ngi ñaan waa Thiès di ñaan waa Sénégal yëpp ku nekk fa nga nekk loo ci mën nga def ko ci marche bi dañu wax ne waxuñu ne département yëpp dox. parce que dox bi dafa metti ndaxte moyen dox bi aussi day metti waaye marché bu mag bi muy marché national Dakar lay amee waaye du tere nag ku nekk Thiès wala nga nekk mbadaxun wala nga nekk Fimela wala nga nekk Koumpentoum wala nga nekk Dande Mayo bu la neexee nga sol sa lu la neex dem def sa li nga bëgg a def mooy wane sa mécontentement par rapport ak Sénégal ni muy doxee par rapport ak démocratie bu sooxe bi par rapport ak liberté yi nga xam ne ñu bëgg a confisquer mais également par rapport li nga xam ne mooy suñu pétrole ak gaz bi nga xam ne nii dañ ko bëgg a joxe ci conditions yoo xam ne leerul te loolu moo tax front pour la défense Sénégal juddu loolu moo tax Manko Wattu Sénégal juddu bu neexee la daañu aar réew mi lu ci mën di xew daañu aar Sénégal te loolu moo ñu tax a jóg jërë ngeen jëf leen artu nag artu yi waaw artu yi moom mën naa wax ne du loo xam ne nii mën nañoo yëngal parce que ñun ay patriotes lañu te Sénégal moo ñu ñor kon nag artu yooyu nga xam ne ni premier ministre defoon na ko ñu ne ngelaw la aartu yi nga xam ne nii kii nga xam ne mooy timis jóge ci bitim réew fekk ñu suñu réew bëgg ñëw aartu bu neexee yàlla talaata bii di ñëw opposition bi daañu ko tontu tontu bi nga xam ne nii moom nañ ko tontu waaye mën naa wax ne tontu aaram aartum boobu ay a poussière la rek buy jàll parce que loolu taxu ñoo jóg ñun li ñu tax a jóg mooy li tax ñuy laaj ci pétrole bi gaz bi dañoo bëgg mu leer mais ngir yàlla nañu leeral mbir mi dañoo soxla rek mu leer na leer bu leeree rek coow lu jeex dañoo li ñuy laaj dañuy wax ne lan la famille président bi def ci pétrole bi ak gaz bi loolu sax timis tontu na ci parce que timis nee na ah rakku président bi benn facteur la bu yore welo Mamadou Diop Decroix nee na facteur boobu moo gën am salaire gën a mag ci adduna bi xanaa ndaxte facteur kat buy gagné ay millions kooku facteur bu dey waar la waaye loolu am nañu réponse loolu timis moo ko tontu ba ci des ndax ñu ne ndax intérêt Sénégal défendre nañ ko ci loolu loolu ba léegi moo andi lëmbaaji wax ji te timis ni mu wax démb dafa gën a lëmbaaji wax ji waaye bu neexee la ci kéeju leer. opposition bi taxaw na pour tontu ko à la talaata bii di ñëw ci Ndakaaru te bu ne xel Sénégal bi daañu ko dégg ñu ngi leen di gërëm di leen sant. indi programme boo xam ne ñun bañ ko liiree benn projet personnel nekku ci. programme social boo xam ne sénégalais yépp dinañ ci gis seen bopp ñu xool ko déglu woon beneen programme tax ñu àndoon ak ñeneen ñu xam ne programme yooyee. biñ demee ba ci biir ay naxee mbaay la kon autant ñu ànd ak ñi nga xam ne ci yeneeni jamono yàlla ci yeneen enseigne la leen loger ñu góor góorlu ak seen jàng seen fit seen gëm yàlla seen jàmbaar ba egsi fii tey Malick na nga am xel mu dal dinaa topp ci sa ginnaaw dinaa nekk ak ñi ma am sa cheville ouvrière te dara duñu dàq ñu ndekkum ne xam na ni sidit yi ñu yàlla jële suñu ragalee ñu war ñu koo laaj ngir keroog le 23 juin te taxul ñu politique nekk nañoo ay kilifa waaye doxaliinu réew mi neexuñu ñu dem marche pour réew mi changer biñ demee ba ci biir gisuñu benn changement ñu xam ne ñenn ñi ku leen teg te jàpp ci te Sénégal jàpp ci bis buñ toogee soppeeku dina am alal yi kenn xeet loowu la fi sa njàmbaar sa jàng sa góorgóorlu sa xam-xam ak sa maandute moo tax samay waajur ca Touba ne ma dénk nañ la Malick dama waxul ànd politique waaye keroog bi suñuy kilifa toogee dénk nañ la ko nanga la ma kon am nga rak te dinaa topp ci sa ginnaaw foo yendu dinaa fa fanaan foo guddee dinaa fa naaje ci lu neex te yàlla nay neex ba faw ñu lay gunge ba dugal la pale ci barke rasululaay sallallahu alayhi wa ci barke sa turandoo bu tedd ba ci barke Cheikh Ahmad Bamba ak mag ñi nekk Sénégal Malick na nga ñeme ñi fi yilif tey li nga am amuñu ko woon am nga ay cadre de qualité am nga ay jeunesse de qualité am nga ay jigéen yu am fit ñun politique defal nañu carapace yu dur kenn du ñu xoqtal dinañ ànd ak yow di ñaan yàlla balaa yàgg ñu gunge la palais wax ji nag dañ koy gàttal waaye yéen jigéen ñi ñoo ngi leen di xamal ne liñ daan def dara du ci soppeeku mooy politique de développement social boobu di dugal suñu loxo ci seeni projet di ci jàpp di leen financer waaye na ngeen xam ne wëlbatiku leen xool leen Malick ak ñeenti bët ne leen ko jàkk te bu ko kenn xef yéen waa Thiès dëkku jàmbaar dëkku fit depuis grève bu Sarr Ibrahima ba ñi fi jaar ñépp ci temps wu ba ci kilifa yi jiite dëkk bi ñu jur ay borom fit ay borom jàmbaar ñoo xam ne bu réew mi taxawoon dinañ ko dinañ ko attee te coow du jib yéen waa Thiès ragalu leen topp leen ci ginnaaw Malick wasalaam ndaxte tey jii xam nga ne li ma di woon Thiès mooy accueillir madame le maire Ndeye Mbacké ci Grand Parti xam nga ne madame le maire bu nekkoon ci mouvement présidentiel démissionné ñëw adhéré grand parti loolu jàll na déplacement principalement loolu li ma indi fii ci la bokk ensuite ngeen taxaw ne il faut ngeen inaugurer permanence bu grand parti fii dans la ville de Thiès ma bëggoon leen féliciter aussi ci loolu ndaxte permanence bii ngeen inauguré tey nekk na permanence boo xam ni mën naa wax sax ne moo dàq suñu permanence Dakar kon nag vive Thiès et vive les populations de Thiès ndaxte seen permanence bi rafet na et makkaan bi nga xam ne nii mën ngeen fa liggéey pour que ëllëg grand parti nekk parti bi nga xam ne nii ci parti yi gën a mag ci Thiès ci la bokk te xam naa ne ci tànk yooyu ngeen nekk li ñuy def nag ngeen ne ma. bu loolu pare il faut nga ñëw fii place Agora comme ça suñu xarit ñi nga xam ne ni ak mbokk yi jóge ci département bi ak commune bi nga mën leen nuyu sargal leen pour que ëllëg meeting bi ñuy waat Thiès ak réunion yu mag yi ñuy waat Thiès mu nekk réunion yoo xam ne dina mag mag ba nga xam ne nii yaakaar bi ñu am Thiès ci grand parti yàlla mottali ko kon nag mën naa wax ne fi mu nekk nii liggéey bi mat na. dama waxoon ne bu huit heures jotee match équipe nationale du Sénégal commencé réunion bi il faut mu jeex ndaxte équipe nationale buy football moom ñu ñëpp lu ñu war def dañu ko war a bàyyi jàppale Lions yi yàlla may leen ndam parce que ndamal Lions yi mooy ndamal Sénégal yëpp mooy ndamal parti politique yëpp moom mooy ndamu képp ku nekk Sénégal waaye nag temps bi xaw na yokk tuuti moo tax dañuy war a gàttal wax ji ma wax leen ne kontaan naa. et eh, maa ngi gërëm donc responsable yi nga xam ne ñoo nekk grand parti yëpp yéen ñëpp ngeen ànd bokk ndey bokk bàyyi dalal tey jii Adja Ndeye Mbacké ma remercier Alsane Kanté remercier Aline Diop remercier Daha Kanté remercier aussi Marie Iwone bi wax ci turu département bi may wax na ñi ma tudd ak ñi ma tudd yëpp man gëm naa ne Thiès yéen a bokk ndey yéen a bokk bàyyi loolu la ñuy ñaan ngeen joxante loxo. liggéeyal grand parti ndaxte il ne à rien de travailler dans la désunion il faut ngeen bokk ndey bokk bàyyi pour que parti bi mën a am doole fii ci Thiès et la l'appel bi ma xam ne moom laa ne di lancer yéen waa département de Thiès yéen commune de Thiès ngeen joxante loxo liggéey pour que bu ma fi ñëwaatee grand parti gën fee màgg kon nag sama xol sedd na ci yéen maa ngi leen di gërëm di leen sant. je voudrais quand même